Our gospel reading is taken from the Holy Gospel according to Matthew, Matthew chapter 5, verses 17 to 37. Father Edu will do the reading and then we'll listen to the homily. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Amen. borom bi say baat xel la ak dunda ci ñun yaa amee baat di dundal abada Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen. te borom bi ànd ak yéen. l'évangile Yeesu Krista ba Maacee mu sell ma binda ndax ela na borom bi. keroog taalibe yi nañu fa Yeesu ca kaw tunda mu ne leen bu leen foog ne dama ñëw ndax tas yoon wi ak yonent ya déet ñëwuma ndax tas yoon wi waaye ñëw naa ndax mottali leen dégga dégga maa ko wax balaa asamaan suuf di wéy duñu dind dara ci lu gën a néew ci yoon wi wande lépp war naa mottaliku képp ku moy lu gën a néew ci taali yëble yi de di ko digtaal nit ña dinaa la seete ni ku gën ñaaka barke ca réewum arjana waande ku leen di toppa di leen jéemantal nit ña nañu leen seete ni ku gën a réew ca réewum arjana ndege leen ko wax su ngeen su seen jubaay sutu leen jubaayu bindakat ye a pharisien ya dooleen leen dugga mukka ca réewum arjana dégg ngeen li ñu leen digtaloon ci seeni maam ya bu boom ku boom nag aate war na koo dogal man nag maa leen ne ku mun doon ku mere moromam aate war na koo dogal ku ne moromam doof mbaate dof nga aate bu mag war na la ku ko ne yiifar ngetenu safara war na laa dugal soo dee jébale mboog sa maye ca loteel ba te nga fàttaliku fa ne sa moroom amel na la bàyyil sa maye ca kanamu loteel ba te nga jëkk a dem marag sa moroom booba dikkal nga def sa jébale gaawal jubook sa mbañ fekk yaa ngeeg moom jéeg ca yoon su dul loolu moom dina la yóbbu ca aatekat ba te aatekat ba jébal la alkaati ya ñu tëj la digga digga maale ko wax doo fa génn fekk fayloo koppar ya mu jee dégg ngeen lu ñu digtaloon ne bul njaalo man nag maaleen ne ku seetee jigéen ak boti sobe njaaloo nga jéeg ci sa xol su la sa botu ndeyjoor fakatale luxati ko saani ko fu sore ndege ñaaka benn cër si yaram moo la war a gënal fuuf aste ñu saani la ak sa yaram ca safara sa su la sa loxo ndeyjoor fakatalee dog ko saani fu sori ndege ñaaka benn cëru yaram moo la war a gënal fuuf aste ñu saani la ak sa yaram wéppa ca safara wax nañu itam ne ku fase jabaram na ko jox kayitu fase man nag maa leen ne soo daaxee sa jabar lu dul ba mu moyee sëy dinga tax ba mu di njaalo te ku takka jigéen ju ñu fase njaalo nga dégg ngeen itam la ñu maam ya ne leen bu lekk bu lekk bu ngeen waande mootali ko ci kanamu yàlla man nag maa leen ne bu leen génn mukk ci turu kenn mu di turu asamaan ndege nganju yàlla mu di turu suuf si ndege jégukaayu tànkaam la mu di turu Yerusalem ndege déggu buur ba rëy na bu joteen itam ci sa boppa ndege mënuloo wa sax def sa kawar mu weex mbaa mu ñuul waande li ngeen di wax na doon waaw waaw mbaa déet déet ndege lu ci tegu ci ku bon ki la jóge su may mbokk yi lile baatum yàlla la sant nañu la krista bi mbokk yi ñu nangu dimanche ji le mu di jumaare eh, juróom-beneel dimanche ci atu jàngu bi di seede li nga xam ne moo di kawteefu yàlla ci biir suñu biir ci biir àdduna suñu nekk ndegem yàlla kawe na lool bi nga xam ne ku ko bugg a séendu da ngaa teen ci kaw teen ci ñaan teen ci ngom teen ci yaakaar waaye liy motali suñu yaakaar mooy kaadoom kaadoom gi sell gi ñëw dégg saa yu ne dimanche ju ne bés bu ne ndax mu doon loo xam ne lii suñu dundu fit la tey nag kaadoom seet na ndegem njàngale gu rëy la Yeesu di def ci téere bu sell bi tey ni ñu ko déggee ci téere l'évangile bi bu ñu ko seetloo juróomi aaya yi nga xam ne moom la ñu dugga ci téere Màcc mu sele ma doon na juróomeel yoo xam ne njàngale yu rëy moo fa ne déggoon nañ dimanche jale mu di seede di jàngale yéena di xoromu àdduna si yéena di leeru àdduna si tey nag njàngaleem dinañu ko jël benn benn comme ni ñu ko gisee ci téere bi ba ca jiitu la mu doon fas wolore ak nitu Israël ak ña ko doon dégga moo di ndikaam ni musalkat taxul mu ñëw ndax tas yoon déedéet taxul mu ñëw ndax tas yeble yi déedéet yoon ak yeble yi dem ca yàlla la bawoo